salaamaaleykum mbokk internet dañuy safoo dañuy seetaan saa su nekk fii euh, dakarnet point com euh, comme ni ma ko defee saa su nekk di wër artistes yi euh, ndaanaan yu nekk fii Sénégal tey dama ciy boole ñaar ñoo xam ne dañoo am talent mën a way nekk ci yoon mi di dem nu ñu def rek loolu jox leen kàddu ñun yoo après ñu dikk ak moom ci waxtaan poliment ñu ngi leen di di la ziar. suma ndaanaan maa ngi lay fay di nuyu sa cadreur bi di nuyu àdduna wërngal képp surtout nag askanu Gambie bi nga xam ne nii. Euh, fa la ñu juddoo ah, di nuyu tamit waa Pass yi nga xam ne ni euh, fa la ñu yaroo mun naa ni fa la paa bi maire bi nekk euh, di nuyu képp nga xam ne ni fan su kër gi famille nga di nuyu waa kër gi nga xam ne ñoom nga fekk si fii muy le label Rockteam Music bàyyiwuñ kenn di nuyu cat ba cat di la jaajëfal nag ci ñëw bi nga ñëw seet si ñu ndax yombul dégg ay artiste ngeen xaaral ma daw ñëw mais ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax. asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp parce que àdduna yëpp a ñuy seetaan. Euh, maa ngi bëggee ñëpp maa ngi lay bëggee waa dakaar net di leen bëggee lu bëree bëri di rafetlu invitation bi comme ni ko Polimane waxee euh, di bëggee waa Gambie Sénégal sam fan si nekk États-Unis ak képp ku ñuy safoo rek ñu ngi lay bëggee lu bëree bëree bëri di leen wax ne émission bi dina neex trop nag tey. ok euh, jaajëf kon euh, gars yi ñoo nekk noonu kon xam naa dañuy def rek lu dul euh, xuus dugg ci waxtaan bi ñu leen njëkk laaj mooy que ni gars yi yéen seen te nan la demee parce que ñi ngi dégg Gambie ñi dégg fii ñu leen doon laaj tey seen début nu mu demee tey. suñu début nu mu demee genre ñun ñaar yëpp Gambie lañ juddoo. maak moom yëpp grand mooy sama grand frère ma nekk petit frère am ñoo bokk ndey ak baay. yéen a bokk ndey ñoo bokk ndey ak baay. dana waar ah. gis nga mais man petit frère bi man maa nekkoon ci musique bi nekkoon ci rap bi. Mhm. parce que bi ñu jóge Gambie lañ juddoo après si la pa bi retourné ñëw Sénégal fii jënd kër ñu nekk fii nii. Mhm. léegi bi ñu nekkee fii ma nekkoon boobu dëgër bopp nekk ci hip hop bi nekk ci kiri karab rab laa doon def. Mhm. nekk ci nekk ci nekk ci ba moom tamit après mu jógee Thiès retourné bi mu ñëwee Passy fekk ma foofu noonu. gis ne maa ngi ci rab bi maa ngi maa ngi dóor moom tamit dafa moon rêve bind livre parce que écrivain la woon moom tamit. genre après bi mu ñëwee fekk may def may def musique mu ne lii moo gën a gaaw pour jàllale message après moom si la formé groupe bi moom moo formé groupe bi si lañ dem gaaw mi nag nekk foofu noonu nekk foofu noonu musique bi di dem ñuy dem ndànk ndànk ba yàlla def ñu dugg ci école musique génn ci école musique bi nag après gis nga yàlla def boo tuddee gaam bi benn da ñu ciy teg wala ñun ngay njëkk a teg amul prix bu gars yi di kii foofu noonu te gañewuñu ko raatale foofu yëpp après daw ñib siwaat Sénégal ok loolu boo ko déggee xam ne ah, wax na lu leer tamit aussi tamit dañuy ñëwaat ah, ci ah, Polymène mm-hmm. waaw comme nee na moom moo la jiitu ci musique bi. mu ne léegi lan moo la poussé loo xam ne war nga mën a man sama frère mi ngi fii faaw ma ñëw ànd ak ak moom quoi. ok well uh, une très bonne adduna foog naa ne nit ku nekk sa xel nga am mm-hmm. te sa xel ngay demee comprendre nga mm-hmm. ok man bi ma ñëwee dama ko fekkoon ci groupe moom mi ngi amoon xam nga rek ñoom étant boy xëy na ñu ngi woon ci musique di def rap. mais passion la woon pour ñoom moom bi ma toogee ma xool ma gis ne lii mun na nekk un travail boo xam ne ni dinañu jëriñ ñun ñëpp. travail équipe daal très bien dinañu jëriñ ñun ñëpp. Mm-hmm. te te te man li ma jëloon idée yi ma amoon mooy bëggoon a nekk un écrivain di bindantu di teg xam nga après ci xool ne à travers la musique xëy na moo gën a yomb. da nga dem ba ci biir xam ne nekk nga ne xaaral ma la musique moo gën a yomb te. Mm-hmm. même si benn talan bu tuuti sax yàlla may nañu ko car macha allah ñu koy sant yàlla mhm. bon ci laa formé groupe bi moo formé groupe bi tamit ñu dem Gambie bi ñu demee Gambie comme ni mu ko waxee euh, nekk Gambie suñ nekk Gambie xawoon na métti tuuti parce que mhm. Gambie lañ juddoo ma nag moom mais Sénégal lañ defee suñu lépp mhm. depuis ba âge lañ ñibbisi fii lañ defee primaire ma dem ba primaire ma arrêté donc suñu delloo Gambie déjà accent sénégalais bi xawoon na jaaxal Gambie yu bari. xam nga non ñu duñu ay Gambien ñi ay grand lañ Sénégalais bi grand lox gars yi ay grand lañ. mais mais mais mais comme li yaa lay def rek nit ku nekk man li ma gëm mooy foo nekk. Mm-hmm. Euh, wane fa sa xarañte ak sa njàmbaar. bañ boole la ci. na mm-hmm. ñuy tudd. Mm-hmm. bon bi demee ma xool gis stratégie ma xam ne foog ñu am yeneen affaire yu ñu def pour nit ñi teel ñoo bàyyi xel. ma fexe introduire sama bopp ci ci média. micro bi ngay téye nii. parce que téye naa ko pendant sept Hmm? waaw di liggéey ci rajo di présenter émission yi gën a am doole Gambie ñi may seetaan xam nañ li may wax. saa yéen daanaan nga mën nañoo jàppale ko yow yaa ngi fépp waa ci kii bi. waaw mais dangay hmm. soo xasee nekk amul xaar ma yàlla lépp loo ci mën a def def ko parce que un musicien nga war a nekk complet comprendre nga bon nekk ci noonu nekk ci noonu ba yàlla def tey ñu la ko waxee foo tuddee groupe da ngay wax kër gi famille nga wax keneen wala nga wax keneen nga wax kër gi famille hmm. dañ koy sant yàlla ba yàlla def ni ñëwee Sénégal nii. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw comme moom nee na moom ah, bu njëkk ba daraan daraan rab quoi est-ce que dooñu si ñamal tuuti may ñu kii kii rek. non xoolal euh, mm-hmm. genre euh, mën naa wax ne après ma génnee école musique. wër yàlla ba commencé jouer guitare. Euh, dafa changé lu bëree bëree bari ci man. Mhm. après rab dafa nekk yëfu booy ci man tellement que. Ah, mais nga ñamoo taay nga daan dundee. non waaw mun naa koo def kay. loolu lañ bëgg nga ñamal ok xaaral internet yi. ok ma ne. Mhm. yow nit ñaa ngi séentu taar man maa ngi séentu jikko. soo rafetee sa xol bi setul kon de jekkoo sa jëf ju baax a tax ma naan la kaa ñu jokkoo da ngay a baax saa su ne yàlla na la jikkoon fu ñu la fekk yaa ngi ree sa jëf ju <laughs> ah gis nga dajëref <laughs> tellement que texte gi da nga koy fàtte sax parce que mélodie yi ak guitare geeg yooyu noonu da ngay gis ne après da ngay da ngay génn ci rab bi dama génn ci monde rab bi géej naa rab yàgg na war na yàlla dugg ci affaire daal rek mu neex nga ni ko teg fa non du du bàyyi rab sax genre mhm. après day mel ni comme day mel ni ngay nga dox ba ci kaw. Mhm. ngay dellu ginnaaw. après loolu lay nirool. Mhm. parce que genre way dafa jafe. Mhm. nekkul ñëpp mën a woy surtout boo ko comprendre nag xam li ngay def yëpp bu baax a baax a baax nekkatoo waykat bu ndaw. après da ngay gis ne boo delluwaatee ci rab rek. comme dox dellu ginnaaw la mais ba léegi mun naa ko def de bu ma taxawee dama fi toog ak booy mi ñuy improviser improviser nice rab ba <laughs> waaw dugg ba boîte gën a <laughs> ok comme nu nga ko waxee moom ne doon rab yaa ba gën di di di dóor mi daanu léegi est-ce que ñoo xam ne ñaata single ngeen def fii. waaw ok xëy na balaa ñu wax ci euh, le nombre de singles comme dañuy leeralaat rek mhm. bon Sénégal ñu bari xëy na dañu teg ay artistes yu bees euh, mais dañ leen di fàttaliwaat rek nekkuñu ay artistes yu bees ay at def nañ def nañ euh, on a débuté suñu premier single ñu ngi ko génnee en 2010 mhm. lañ ko génne génn nañ benn ipi e ipi e boobu noonu defoon nañ fi benn EP mhm. benn genre album local mais EP. amoon nañ fi ay featuring ak xumaan mhm. yaa ngi dégg indiloon nañu ay yeneen opportunité ñëw fii jouer ay seen petit gaale jouer tournée ci biir Sénégal mhm. donc mais bi ñibbisee nag mhm. euh, ici à Dakar bon ñu ngi job man mi wax ak yow ni ingénieur la beatmaker la en même temps yaa ngi dégg lu mu dee dee rek liggéey nañu ay ñett ba ñeenti album yoo xam ne ni ñu ngi fi mais nag dañuy génnee ndànk-ndànk ci nga gis chocolat ba tax tey nga invité ñu xam nga tamit dina am yeneen yu gën a ñëw gën a neex chocolat tamit te ñu ngi ci ñu ci projet bi di pousse ndànk ndànk parce que xëy na fii ak ay quelques fan sax mm. dinañ joxaat gars yi yeneen affaire xam nga bëgguñ bëgguñ mu sedd daal mm. ndax gars yi nañu yàpp ko ci seede soof dañ bëgg jox gars yi benn par benn mm-hmm. tamit di di di di pousse album bi parce que ci projet album lañ nekk xam nga mm-hmm. mais dañuy gis ne avec corona bi mm-hmm. moo taxoon xëy na génnewuñ ko defuñ yenn lancement yi ci war parce que corona bi yéen sax daf leen tëj comprendre nga mm-hmm. mais nag ñu ngi koy pousse ndànk-ndànk léegi dañuy génne waale gum ay benn benn vidéo ba mm-hmm. gars yi gën a comprendre lan la ñu door a lancer nag album mais est-ce que xam ban moment ngeen xam ne ñun ñi kat tey jii jot na tey jii sénégalais xam ñun ñooy kan. waa actuellement euh, du ma ne Sénégal yëpp xam nañ ñu mais am na quelques parties yu ñu xam mm-hmm. tey soo demee Saalum. cat ba cat foo waxee kër gi famille dinañ la pointel comprendre nga te euh, mun naa ne Saalum est-ce que ëppul bokk na ci côté yi gën a am doole ci Sénégal Dakar tamit gars yi commencé na ñoo comprendre nànk-nànk mais chaque fois li may wax rek loo gis àpp la te nit ki soo nekkee ci dara comme bul yàkkamti comprendre nga te artistes yu mag yi fi jaar yëpp dem ba am ay trophée am ay Cora Award whatever dañu am un plan de travail déjà plan de travail boobu nag ñun moom lañ bëgg a topp at bii nii biñ ñëw biñ bi ñëw Sénégal dañ ñëw tëju génnewuñ son defuñ dara dañ tëju di liggéey di liggéey di liggéey bu demee ba heure génne son jot dañ ko génnee ak vidéo mu génne pom ñëpp daw comprendre nga léegi nag noonu la ñuy defaat ñu génnewaat beneen affaire génnewaat beneen affaire heure génne album tamit si jotee duma la ne ren la du ma la ne déwén la mais heure génne album si jotee dinañ génne album incha allahu rabbi te am 100 percent show ne hmm. dina contourner àdduna bi bu ah, soobee yàlla. d' accord comme ñoom ni ñu ko waxee nee na ñoom dañoo bëgg xam nga def liggéey boo xam ne dafa professionnel ah, comme duñ ah, comme ay ay ay xale lañ daru ñuy yàkkamti dañuy def ndànk-ndànk di ko génne mais tey dama gis fi sama xarit muy gitaar bi te yaakaar naa mbokk internet yi ñoom it xam naa ni dañ ko laaj léegi duñ defee du dul gars yi ngeen jël guitare yi def lu neex gars yi xool. gis nga tey moom. oh, oh, oh, oh. Hey, hey. Yeah, it's so much chocolate. Foja pubulkoba. Radio to my face. Girl, you are my sugar cane. Yeah, kujapo bukuba Eti yo wadufe Girl, you're our sugar cane You're what number uno Sama shoko leka Eti yo wadufe Girl, you're our sugar cane ne jamais. Non, non, non, du ma ne jamais. Na yaa may wéetali, baby bul ma mere. Baby bul ma mere. Ma reeti yow mar ba xametuma ki ma doon. Sama chocolat. do a lick of faith. No, no, do a lick of faith. Kaya fana. Manek is a big kind of foreman. Samama. Niyale khaman is a foreman. You're the day, every day. I give you the title, my little mom. You're my babe, my babe, my babe, my babe, my babe. Yaay sama chocolat. Foja pukuba. Reti omudu mu fe. Girl, you are my sugar cane. You are my sugar cane. Hey, girl, you are my sugar cane. xar yow waaye ndaw Samba. <laughs> gars yi tëjal ci la li ñu doon seet tey jii mën nañ ne fekk nañ ci quoi fekk nañ fi aar bi xam nga talent bi tamit way bi macha allah di leen ñaan yàlla yàlla euh, defal seen carrière. allahumma amiin ci barke Seydou Dawa xameen. allahumma amiin ñi ñu gis à ah, son bi dañ dañ koy déglu tamit euh, ñu gis ni son bi dafa def buzz. Instagram euh, Facebook xale jigéen sax dañuy jël di ko euh, di ko challenge affaire yooyu noonu mu nekk son bu cool ngeen laaj ah son pourquoi ngeen jël ko tuddee ko chocolat. waaw chocolat déjà mot bi rek dafa neex. xam nga nga am sa gel di ko woy chocolat. Hmm. bu nekkee xale. suñ la ñaar dërëm wala fukki dërëm xalaat mburu ak chocolat gi di ko xalaat daw dem jëndi. Hmm. xale lépp lu muy foyee rek lu neex ci xolam la lu mu bëgg la. te mag ñi tamit bëgg nañ chocolat yoo xam naa ne bëgg ñu gis ne moo bu bu lu lu ñuy wax marketing ci musique mm-hmm. euh, euh, jaay maanaam dafa am tur yoo xam ne dafa neex a jaay. mais c'est bon fois sax noonu la des fois ngay jël loo xam ne xale yu ndaw yi sax war nañ cee mun di. wayantu xam nga euh, léegi ñu gis ne mbëggeel mbëggeel moom mbëggeel c'est universel. Mm-hmm. ñëpp dañuy dund mbëggeel. Mm-hmm. comprendre nga lépp ci mbëggeel lañ ko lañ ko lal lépp ci mbëggeel lañ ko fondé donc ñu ne pourquoi pas am na yeneen son yu gën neex chocolat. Mhm. yu nekk ci répertoire bi toog di xaar. mais comme da ngay gis ne comme ci tendance yu mbëggeel la ñëpp nekk. Mhm. man ak keneen ak keneen a keneen. ñu ne bon xaar ñu jox gars ba pare ñu jox leen chocolat. Mhm. léegi gars yi comme gars yi jël nañ chocolat. mu nekk suñu première vidéo au Sénégal. bon am na yeneen affaire yu gën neex ay tam-tam xam nga ay Ndakaaru am na Sénégal yeneen gël am na yaay di rendre hommage suñu yaay xam nga am na def nañ son ak Mambala maam Balla moom moo nekkoon moom moom mooy. vacances yi na. Mhm, xam nañ son ak moom def nañ son ak Chérif Diop si benn. yaa ngi dégg mhm. def nañ am na lu ñu commencé ak Clayton Hamilton. dèjà def gars yi rek nañu xaar bu ñu yàkkamti. xaar bi moom. waaw nañ xaar daal li ci cin li suñ ko yàkkee. Mhm. yow li nga gis nga am na loo gis. naa yaa ngi muñ rek. waaw <laughs> ah, ko daan essayé la <laughs> eh, lii mooy sama xarit moo gis rek. waaw nga bi damay bekk waaw. waaw ci tam ñu gis sa waa ji xam nga mooy mu jël gitaar bi ba pare nekk ci rythme bi ba pare bàyyul benn yoon. loolu danga ko jàng wala nu mu fa demee noonu. Euh, affaire bu doy genre euh, école musique bi ma fay dem bi ma fay jàng. Hmm. jànguma gitaar. d'accord batterie laa jàng batterie laa batterie laa doon mais genre dafa dama nekk koo xam ne nii damay am ay idée trop. Mhm. damay am chaque jour damay am ay ah, waaw waaw am mhm. ay idée trop. léegi nag idée yooyu pour ma génnee ko di composer. Mhm. di composer ay son foog ma jouer beneen instrument boo xam ne moo gën a mélodie mélodieuse parce que batterie. dafa nekk loo xam ne temps lay gën a téye ak ma dëgg la am na ay notes. mais temps la gën a mënoo ci bind son. léegi ma ne xaaral man foog ma jàng guitare. gars yi non nii man leen barki yàlla naa jàng guitare kenn mësuma wax ne ma nii la ñuy jàppee corde. nii la ñuy jàppee accord wala mm-hmm. nii nii kaay ma jàngale nii non non non ci internet bi laay dugg ci YouTube bi parce que am naa base bi ba pare jàng naa école musique lu ci bari mu ngi ci sama kaye yi lu ci mm-hmm. bari comprendre naa ko mm-hmm. léegi nag trop foofu noonu laay jaaraatee di jàngal sama bopp ba tey gis nga am foog ma ne Mm-hmm. am na accord ma mënut a jouer de wala loo xam ne nii di ma ko laaj. ci gitaar gi moo tax damaa jooy parce que ah, ah, naan ay ah, di xalam di waxatu sax mënul ànd. mais saa yi gi xam nga ne. <laughs> bu métti la ci gitaar di way saa mu génn saa mu dégaame quoi. méttee ngi noonu. parce que bëri na instrumentiste yoo xam ne ni am nañ voix yu doy waar mais mënuñ jouer di way. Mm-hmm. parce que jàngandooruñ ko. yëpp da koy jàngandoor li bi ngay joué premier nat yi ngay jàng di wayaale ci kawam boo xasee ba mun gitaar nag te munoo way mm-hmm. ci kawam te yore voix bi dootoo ci way bari na fi ay artistes yoo xam ne ah, bëgguma tudd seen tiir sax waaw mais dootoo ci way genre foog nga commencé ko ah, ci début bi di wayandoor di gitaarandoor di wayandoor di gitaarandoor affaire yi <laughs> moom jaaxaar naa ne moom comme fu mu ko tegee moom ci man boog ci ni ma ko gisee mooy comme tey nga jël sa fourneau teg ko ci suuf di ko boyal mu jékki di jóg ba dem ba tax ko quoi. daal dégg naa waaw ba tey daal ay ndaaraan daal ah, mun naa ne moom laa dajal <laughs> mbokk internet yi lii la leen andi woon gars xam nga neexal nañ ko. waaw euh, euh, teg guitare jouer lu neex loo xam ne man xam naa ne sax euh, yéen kontaan ngeen. problème mu Siri Diop ak booy bi di Waly Dieng mu amoon ay problème daal ñu leen laaj est-ce que yéen parfois dinañ leen daal genre man nag li may wax. musique dafa nekk affaire bu yaatu boo xam ne nii ah. Mhm. sam benn professeur daf ma koy wax. Mhm. moom daf lay jox exemple bu ne la suy comme su su la bëggee ne la comme nga way. Mhm. daf naan la sing like you you talk comme wayal wayal ni ngay waxee ni ngay waxee loolu dafa la bëgg a wax ne la defal sa bopp yow defal yow nit ku nekk musique bi ku nekk da nga am sa yow bopp tamit genre ku nekk war ngaa mën a yem ci sa benn affaire te ba pare mélodie jeexut lyrics si jeexut bit yi jeexut inspiration jeexut tamit genre tamit damay toog gis dégg Sénégal gars yi di xuloo ci ay son bi maa ko moom maa ko créé maa ko nii après ay ree la may def barki yàlla dafa dafay dafay xaw a doy waar. benn instant tamit neexul la toog xam lalu bind say affaire war ko génne door ko jékki-jékki. non loolu moom musta neex. musta neex nga toog lalu door door say affaire ba pare keneen mm-hmm. jël ko génnee ko. loolu genre kooku ci boppam da nga ko war a porter plainte parce que yow sa œuvre la yore noonu. Mhm. sa œuvre la génnee mais soo jaarut ci foo xam ne nii protéger nañ say affaire ku génnee sa œuvre tamit yaay perte mënoo mhm. noonu la fa demee rek mais loolu moom du yoon mais ay toog gars yi di kaas sama son sama nii man loolu affaire boobu noonu man ay ree may def genre eh. ay ree moom du fi am. Mhm. parce que fii moom gars yi pas talentueux gars yi mooy loolu dañ mën na chaque jour xam nga ñaata son la ñuy maye chaque jour dañuy maye son chaque jour. yëngaluñu sax. léegi léegi mën na mais tamit soo bis bi benn dafa xaw a métti quoi xam nga maam ñëpp a bëgg jàll. kon yaakaar naa ne ku nekk rek bu uh, aar na aussi ku nekk tamit bu bayee waaram rek. ku nekk mën nga jël ci am wallaay problème da nekk ci aar bi ñi naan ay diw fii xam nga question de zalu boobu noonu yéen ah, ah, est-ce que yéen koy dund wala boo ko dundee nan ngeen koy dundee. waaw xam nga déjà certes jalousie moom yàlla daf ko mooñaale ak doomu aadama bu nekk nekk da ngay fiir mais nag sa fiiraange yow yaay xam ban degré la la mën a yóbbu ak fan nga koy def parce que ni ngay juddoo nekk xale di màgg xam nga di xam lu baax xam lu bon noonu tamit nga war di traité yow sa degré de firange ba bu mu la sonal. comprendre nga te doomu aadama bu nekk comme comme comme si nga soo jaaree fi nga war a jaar doo fiiree kenn doo sonal kenn doo iñaane kenn. liggéeyal li nga war liggéey defal li nga war a def doo fiiree kenn doo iñaane kenn ok man ci ci ci euh, li di am wax. xëj na lu ma ciy gën a yokk mooy ok. c'est c'est du ma ne du ma ne dañ ñàkk lyrics si quoi que ce soit mais mhm. da ngay gis parfois tu vois des artistes yoo ne dañ xaw a yàkkamti tuuti waxoon naa la ko ci njëlbeen mhm. aar àndul ak yàkkamti ba pare nga nekk studio mhm. nga job son bi son bi pareegul nga snap ko tas ko te bareegut génnagut déjà am na ñoo xam ne nii. Mhm. ñoom amuñ concept mosuñoo am concept. noonu la leen yàlla bind te ay wéykat lañ. Mhm. léegi nag suñu gisee ne ok euh, Polymane dugal na benn sound bu mu snap léegi nii. Mhm. sound bi mu ngi tudd xam nga. Euh, mburoog boor wala. dañuy dem ñu ñu def ko mburu ak bota. xam nga engrais engrais ñoo fa bota. <laughs> dem ñu def mburu ak ko xaw a très bien léegi nag yow ba yow nag. di précipité yow balaa nga génne sa œuvre. fekk na yow sànni nañ ko bu yàgg après loo ci mën. loolu ci dara quoi pour man ay xëccoo lyrique si kii moo ko moom kii moo ko moom yooyu yëpp pour man amul benn sens quoi fi ngeen nekk nekk leen fa képp ku ku fa bokk nga xam ne daf fa bokk parfois tamit tu vois des des des yoo xam ne day am ñoo xam dañ di di leen infiltrer mm-hmm. ñëw fii jël fii yóbbu feneen ñëw fii jël fii yóbbu feneen loolu tamit foog gars ci bàyyi xel mbooloo bu ne dina am ñii dañ positif ñii dañ négatif loolu tamit ñi nga xam ne dañuy diriger mm-hmm. dañuy fexe dañu war a fexe di xam yooyu noonu di ko éviter lépp loo liggéey ci studio bi fekk génn bu mu génn ci studio bi mais da ngay liggéey dara ci studio bi pareegul sax mu yegg ci cinquante téléphone dama koy gis ci ay artistes nga liggéey dara mm-hmm. pareegul mm-hmm. nga envoyé ko sa gel sa gel envoyé ko keneen sa copain envoyé ko keneen mais parewul après yow déjà producteur ko liggéey mm-hmm. loo ci waroon def après dem na ba pare bari na fi ay son yoo xam ne nii dafa génn te mixé ko mais loolu moom moo ko génnee te son bu bu génn te mixé wuñ ko moom c'est c'est autre chose donc donc affaire jalousie moom bon bon man de aw ma ko te kii tamit foog ma ne baax waaw man affaire jalousie moom lijjantu ma ko. man man man benn principe laay dundee mooy. lu ma mun a def dama la carrément dinaa ko def lu ma mun ta def. xoolal munu ma ko wàcceel ku la neex munu ma ko. Mhm. du fa ma fekk damay kaf ak ñëpp réy et puis ainsi va la vie quoi. kon yaakaar naa ne ah, émission bi jeex na lu ñu amoon ci temps ah, jeex na bëgguma woon sax mu jeex parce que na trop macha allah léegi xam naa dañuy def rek ngeen tàggatoo ak sama waa ji léegi après ah, ngeen xool ñu ngi demee incha allah ñu jéem a xool ba beneen kontaan rek euh, di gën sant yàlla ndax euh, lii dafa neex nga nekk ci dara euh, maison de presse yëpp di daw di la fekk si je pense que dara gënu ko neex. tey am na archi yu bëri ji génne nañ lu dul jeex kenn du leen fekk si kenn du véhiculer li ñuy def dèjà dañ ci sant yàlla bu baax euh, di lu tamit yéen si ñëw bi ngeen ñëw parce que ay borom baax ngeen ay ndaanaan ngeen da ngeen seetaan vidéo bi rek mu neex leen ngeen daw ñëw mënoon na leen ca bañ a fekk bon di leen ñaanal yàlla ngeen gën a yàq ndax ay ndaw ngeen te su ngeen neexoon ngeen dem taxawaal ji wala ngeen tëdd nelaw wala ngeen nekk di jël yëf jàmbur mais defu leen ko yéen a seen liggéey mm-hmm. xam ci ngeen yaakaar pour teral seen bopp teral seen famille yal na leen ci yàlla defal jàmm te yokk leen ba ngeen yëg ko tamit bon su weesoo tamit di gërëm waa kër gi fii nii waa label bi The Rock Team Ziz Art amuñu seen fay tu vois dañ ñëw rek intégré bokk dèjà di leen ñaanal tamit di ñaanal archive nekk yëpp visibilité bi kër gi famille am Chérifou Diop si benn am ko Jéla am ko yeneen artistes fi nekk yëpp yal leen yàlla may visibilité boobu noonu ba ñoom tamit ñu mun a am lu dul jeex ci musique teral seen bopp bon grosso modo foofu laay yemale di nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu nag sama cadreur bi uh-huh. borom borom baax nga gaynde ah, Euh, ok comme ni ko sa waa ji waxee rek euh, ñun sax bëgguñu woon mu jeex parce que affaire yi neex na trop neex na trop mais gis nga mm. euh, lu nekk day jeex ci àdduna mm. dara demul ba faw mm. balaa dara maa ngi leen di ñaanal yàlla di leen ñaanal yàlla tey tey kii bi dem ba nekk tey benn MTV biir Sénégal. amiin amiin amiin parce que tamit mm. ay nit yu am objectif tamit nekk ci benn bagage bi tamit di dem tamit loo leen ñaanal rek te ñu am ñoo xam ne nii am nañ xol bi am nañ euh, talent bi loo leen mm. ñaanal tamit yàlla mën na koo def mu jàpp mu mu mu parce que tamit su su amee tamit. seen biir réew di ngeen mën a suxali seen réew parce que di ngeen mën a employé ñeneen ak ñeneen ak ñeneen comme ni ko père Youssou Ndour defee di leen ñaanal yàlla yàlla mm. yokk télé bi mu gën a jëm ca kanam euh, di bëggee waa Passy waa Passy lu bëree bëri Passy mu ngi nekk ginnaaw Kaolack foofu laa jànge sam primaire ba troisième foofu laa ko defee hmm, Saalum hmm. waaw di leen bëgg lu bëree bëri di leen wax ne leen gis naa jàppale bi gis naa pousse bi gis naa lépp hmm. ñu ngi bëgg ci ñoom waa Gambie Kaolack ba Dakar fii di bëggee ñëpp di leen wax na leen waaw mooy loolu kër gi famille ngeen amoon ñetti ñaari booyu gàtt yi bërëb bopp yu tàcc yi <laughs> moom sax wax na ko nee na woon affaire yi jeex ndax uh, dafa neex uh, macha allah yaakaar naa ne aussi mbokk internet bi leen andi loon neex na leen ñu dara ñaari ndaanaan yi di rek lu ñu bëgg seen carrière aussi ñoom ñoo ko xam uh, yàlla na ko seen borom defal ci barke naa Muhammad da leen jox xam naa beneen dig daje ak yeneen ndaanaan rek incha allah di gërëm aussi sama cameraman Toumane yi jaajëf big up Oh, oh. Woo, woo, woo, woo, woo, Ndakaaru Njaay ndanda ndanda Ndakaaru Njaay ndanda ndanda Ndakaaru Njaay ndanda ndanda Ndakaaru Njaay Siin Saalum yëpp wët lal dundam yéex a développement yo mettil dundam Tambacounda Matam Mbacké ñëpp wey Casamance Jurbel Kolda ñëpp wey ñëpp ñu jëm xanaa Dakar